Uh, the National Assembly member for Serekunda Halifa uh, said that his offer to board at the Serekunda Health Center from its terrible sanitary situation was rejected due to political reasons. He made this disclosure during parliamentary debate on the State of the Nation address where he described the health center in his constituency as a wrong place for maternity care. Having his money rejected, Mr. Sala argued that it was then proper for the Vice President, who was present at the Assembly, to visit the health center to ensure immediate action from the central government. We have more. Here in front of the Honorable Speaker, as you can see, uh, this is uh, what you call an invoice that I collected for the clinic just opposite my compound. And Honorable Speaker, this is $15,000 Another $20,000 just to be able to replace the pipes, the, the electrical equipment, the, the toilet. Honorable Speaker, this is where pregnant women deliver. I want the Vice President to go and visit that place and ask herself whether a Gambian child should be born in such a place. And I volunteer to do it. But somebody, some authority told them that uh, if you allow this person to do it, you will have implications because we are ready to do it. Fine, go and do it then. But this is what must change. We are not here to window dress. This is not a blame game. Any government that takes over, the first task should have been to identify all the shortcomings and come up with a short, medium, long-term policy, strategic plan, program that you bring before this August body so that we know that this is what you have inherited. It's not your fault. This is what you intend to do. We'll monitor it. Is it the right thing? We add. If it's not the right thing, then we follow you. So every quarter, every semi-annual report, annual report, we determine whether progress has been made. But if you fail to do that, then accept your fault for maladministration. Because administration requires that you do your homework before you start to act. And that's not an abuse. It's a shortcoming. Accept it and administer efficiently and effectively. waaw maam ji bi kooku nekk honorable Halifa Sallah foofu noonu ci National Assembly ah, moom nag ci diir ay kaadoom ah, mu ngi doon fesal ne moom nag ah, si gesture jotoon na jotale loxoom si li nga xamante ne mooy government pour rek dimbale li nga xamante ne mooy di Serekunda Health Center waaye daal xamal na nit ñi ne dañ reject li nga xamante ne mooy xaalis bu si bëggoon a dugal soo ah, si loolu nag ah, mu doon ñaxtu ki nga xamante ne mooy vice president bi and was president bi assembly pour moom mu def ay jéego dem foofu noonu sa Serekunda health center bi gannaaw moom reject nañ xaalisam bi dem xool ah, conditions yi foofu parce que foofu conditions yi bon nañ bon yi nga xamante ne ba warut a nekk maternity ba maanaam Ah, warut a nekk place bi nga xamante ne sa ah, ay jigéen sax war nañ faa dem di fa ah, give life maanaam di fa jur ay doom. waaw euh, dégg nañ ko ci kaddum comme ni mu ko waxee ndax boo xoolee euh, defe naa ne. lu fekk lu nga xam ne euh, da nga ci teew mun nga koo nettali ndax nettali day fekk nga fekk yëf yi mhm. te wane na ne moom def na ay jéegoom jël ay matuwaayam dem ci fi nga xam ne mooy Serekunda Health Center mhm. xool soxna yi fi nga xam ne foofu la ñuy wasinee mhm. mu gis li nga xam ne mooy dundini environnement bi mu leer ne fii ñii luñ soxla pour bërëb bi mu bakk ne ba jigéen gu fi ñëw toll ci li nga xam ne moom moo nekk diggante pour nga mucc ak jàmm di nga am matuwaay yu la mën a jàppale ci taxawaay booba wane na moom def na ci li nga xam ne mooy waru garam national assembly member la Citizen la doomi Serekunda la waaye wane na tamit ci taxawaay bi nga xamee ne delloo nañ ko li nga xam ne loolu la defoon wala yéene bi mu amoon mënuñ ko mënut koo sottal ndax wan nañ ko ne ko lii duñ ko jël ndax nguur gi war nañoo jël seen matuwaay ak yooya segam nag ki nga xam ne moom moo nekk ndawal buur di vice président mu nga fa woon te joytu na taxawaay booba am nañ jot bu rafet ne saafara suusu war naa faju ndax ñi ko waroon a jot war nañ koo jot mooy ne nguur gi te vice président moo ci gën a yey te fekkee na kàddu yi ba sala di leral ne ko loola ñooña yittewoon nañ ko te man jëloon naa ci samay matuwaay ngir def ci saafara waaye wane nañ ne saafara soosa du man la yeey nguur gi la yeey ñoom ñoo ko war a def kon nguur gi nañ ci jël seen jéego. which which according to to the public sir, uh, is a good example uh, because uh, nit ki waruloo dem ba toog si toogu nguur rek nga mun a def dara as a politician time boobu noonu as an opposition sir let's say time boobu noonu nga war a gën a make effort sax pour dimbale askan bi. في بين الرجليال اللي تانا بومونيك president ونون in our different bits and in our different abilities ويالا يالا سونو كو ماي ورنا ньо جينغو بيغا خامتاني نون تامي دينن ديف سونو والا سي والم development so سونو توغي بيغا خامتاني Halifa Saleh is an uh, is a is a veteran politician also in a position uh, also somebody ko xamantene mu ngi contribute a lot towards uh, Gambian uh, politics wara dem ba uh, jotel loxom pour support li nga xamantene moy Serekunda health center ñepp xam nañu xana ko fa musta waaye ku musa dem Serekunda health center gis nga conditions yi nu mel um, which uh, the public sent gis gis is a very bad move by the central government this is not the first time gis nañ fii the case of uh, Rohi Malik Law uh, bu mu waxee ne li nga central government dañ ko sideline si Banjul project bi bu mu demee uh, foofu noonu seen office pour enquire naka la project bi nekk because Banjul is under her leadership and it's just normal tamit mu xam lan moo nekk di xew but then she seemed to be sidelined the same case was with the um, the trucks the the trash bins yi nga xamante ne moom la KMC the Gambia Gambia ñu ngi charge clearance of 13 million even though partnership was between KMC and a private uh, institution which is Q Group but in government bi waroon na see local government ba involved. involve ba nga xamante ne clearance bi du si that high Gambia so the fact that central government would try to you know take everything or want everything to be in their name is very very wrong uh, if if local government is there to support the central government local government development more tax defal ko boppam Gambian si la defal and to complement the efforts of the central government so I think that is something uh, loo xamante uh, central government war nañ koo seetaat bu example a baax waaw defe yi nga indi ay référence la yu nga xam ne xëj na nguur gi mun nañ cee jël ay jàngat mandarga yu nga xam ne bu dee taxawaay la ci luñ jàpp ne doonul luy saafara lañ gis ne jéego yu am solo la pour ñu mun a xool gis-gisu naka la central government di liggéey ak ñi nga xam individuals ak private sector bi ba government bi seen bopp ñu am dimbal ci yu bëree bëri yu nga xam ne dina leen leer ne lu kenn mën ñaar ko daal mhm. bu dee ñoom rek ñoo war a def bu ñu amee ñeneen ñu pare pour def loola mhm. mën nañoo ubbi bunt yu yaatu ko ba ñun ñëpp ñu bokk xàccendoo doorandoo li nga xam ne mooy taxawaay bi ba saafara mun a am ci yenn yu nga xam ne dinañ ci mën a gis solo yi nga xam ne moom lañ yaakaar ci mhm. gis-gis bi ba lépp lu nga xamee ne moom mooy yaakaar bi askan yi mun cee jëfandikoo ci li nga xam ne mooy taxawaay yu mel